وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين غر الميامين ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa ñoo ngeen nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp itam di balu xaq di ñaan yàlla ci suñu jataay yi yàlla nañu yàlla boole defal yiw di sant yàlla bu baax nga xam ne dafa ñuy may ay occasion yu mel nii pour rekk ñu laayante biir ndax itam laayante biir rekk moo mën a jariñ société société bu war a dem te bu ñu tuddee société rekk ndaw moo tax ndax légitimité bi dundal société ndaw ñi ñoo ko amee kon ndaw ñooñu ndëkk ak jamono lenn rekk moo ñu mën a sauver mooy ndaw ñi xam naka lañoo taawoo seen jamono ndax itam yi daje ci seen diggante ak jamono yi dafa bari te jamono yii leen fekk sa itam dafa bari yooyu yépp nag ndaw lu ci war a dund te moome ëllëg te jamono yii la ganase bari te ñu ne yow yaa moome ëllëg wax dëgg yàlla buñ buñ buñ lay nàmpalul ci nga xam fan nga ciy teg sa tànk rek boo moytuwul sa ëllëg dana nasax waaw ndax yii këfaate tey bokk na ci ñu ne ibiliisu wa dunya nafsi wannafsi walhawa yooyu ñeente yooyu daje di ay croisade ci sa benn yoon yow ndaw mooy nan lay taawoo ji sama mag te ñeenti jamono yooyu nar la fëkk te bu ci ne ci sa diggante ak moom bu dalee ci sa kaw nga gaañu kon naka ngay lañu lay utalee ay système de défense yoo xam ne yooyu bu ñu ñëw ci yow dana la fekkaax lu suude loo xam ne dinga ko mën a jéggi te du la yàqal sa ëllëg farata la waaw kon ndaw loolu lañu fas yéene tey wax ak moom indil ko itam système de défense yi nga xam ne ñiy réussir yaru ndaw yépp foofu la ñu jaar ba réussir ñi yaru ndaw ba yaakaar ci ndaw pour mu gérer une société saine waaw mais bu fekkente ne une société malsaine la itam ndaw lañuy gis ci ndaw mu di ko dunde mooy tax te ndaw li ñuy soxlaa ci moom mooy ñu mettre ko ci condition bu tax ñu xam ne ñu ngi dunde société bu seen bu looloo ñu jàngal ci suñu ndaw démb mu amoon benn jaamu yàlla bu baax sos benn mën nañ ko tudde mouvement mais ëpp na mouvement te mooy a cheikh a sayid Mouhamadil Moustapha ba ki ñu amoon ci jamono boobu muy président Abdou juuf bi mu yëgee ne moom Seydi Mouhamadul Moustapha am na lu mu liggéey ci wàllu ndaw ba am ci yaakaar mu oote benn colloque bu ñuy wax colloque international sur la jeunesse musulmane te wax dëgg yàlla bu ñu ne jeunesse musulmane lañ cay jëkk yaakaar di ko ci am Qui ñu ñu une jeunesse saine Si ah. bi ko colloque président Abdou Diouf dem na ñëw na fekke que benn jour vraiment voilà une jeunesse saine gis nga baat est maga kay wax té mak mi kay wax société yu bari am lu mu gérer itam ci société mais yaakaar bi mu am ci liggéey boobu yëg ne ku mas a réussir ci jeunesse rek foofu nga jaar moo tax mu waxe noonu mu waxe loolu ndëg lañu ñëw tey pour nàmpalaat ko jeunesse bi nga xam ne moo jóg tey parce que jeunesse bi li leen li yi leen croisé dafa bari moom la ñu tëdd sànq ne iblis mooy seytaane mu ngi taxaw ci seen kanam te ñoom rek la soxla àdduna mu ngi taxaw ci seen kanam àdduna boobu tey yi mu leen ëmbal dafa bari mondialisation mu nga ca parce que mondialisation bi ñuy wax tey héritage yu ndaw ñi la waaw kon lan moo ci war a doon rôle bu ñu war a ndaw ñi pour ñu xam ci seen responsabilité lu mu war a doon te ñu bañ a fàtte ne ndaw bokkul la xale ndax xale moom la ñuy tàmbali yar mais ndaw dafa taawu yar ndaw mooy kii taawu yar ba noppi waaw mooy kii majeur et vacciné kooku mooy ndaw waaw wa nafs xam nga kii dem ba xàmme bànneexu bakkan mais mooy ndaw mais xale xàmmeegul bànneexu bakkan ah. moo tax na nafsa kat tifli إن تهمله شب على قب الرضاع وإن تفتمه ينفطمي مام شيخ محمد البشري دفتي واخ واخ بوغات موي بكان دافا ملني خليل واي واخول ني دافا ملني نداو واو خليل اك نداو دو بن نداو موي كونيو تاول يار با امي ان اسبري سان dans un corps sain كوكو موي نداو koku bari na lu muy defati dañ nan mom la mais xale dafa tollu ci ñu jàngal ka bés bu sa tollo nu muy def wa ndaw lolu dëkk ñeente ñi mëna a chemin ba dotul bam andil ke déséquilibre wala ñu dimbali ko ci yar ba mu am ci équilibre ndaw lolu la ñuy waxal tay moy iblis aduna bakkan ak bànneex te ñeente yi ñoo taxaw ci kanamu ndaw waaw te foog mu xam ci moom mooy kan pour que ndawam mën a ñoŋ ëllëg a mën a rafet parce que nag ëllëg amul liggéey bi yëpp tey la ndax yàlla daf ñu dimbalee ay kilifa yu baax yu jàng yàlla ba xam ca lu bari waaye jàng àdduna it ba xam lépp waaw nañu dinga dem ci dund ba yëg na ndekete démb wees na waaye mooy tabax tey te ëllëg amul tey rekk a fi ne maamada faata wal mu ammalu xayb waaye walaka saatu lati anta fiha kon faamal waaw nee na démb wees na waaye moo indi tey suba amul tey rekk a fi ne te tey waxtu rek la ci tëgg kon ndaw li nan lay xamee ne ndekete tey waxtu rekk la ci am te waxtu woow bu ko paasee rekk te defu si lu defar dundu ëllëgam rekk ñàkk na waaw te loolu li koy dimbali pour mu am ka mooy bi ci jëkk mooy mu am kilifa te nangul ka waaw am kilifa te nangul ka te nangoo tënku waaw boo amee kilifa nangul sa kilifa dangay nangoo tënku ndax itam dañu jàngal ne gis nga bëy su amulee gétte rek bukki dana ko reere ndax coono boobu la tit la am ci digganteem ak bukki ñàkk kilifa tax walla bu ko amee it nangulul kilifaam moo tax ndaw li kaa dimbali du xelam kese ndax xelam kese ñoragul ci ñu togg ka la toll waaw fugg la ndaw ame mu ñor tey te fugg boobu ëllëg moo war a jur sagesse mais yooyu li koy tabax ci moom mooy mu am kilifa bu ko jar te nangul ko ndaw day am kilifa te nangul ko bu ko defee àddunam du nasax te yoonam du yeex te ku ko fekk muy dox itam doo ko jéppi waaw na tey lii ndaw di doxe nga di ko ko xoole di ko ko gërëme bareetul ñàkk kilifa tax te ku amul kilifa yaroo ci mbedd te mbedd du yar mbedd du yar moo tax ki fa jëlee yar jàppane yar la bu delloo këram du nekk ak waajuram bari na ndaw ñu mu dal ñu dem jëli ji ci mbedd mi dem dellu si seen kër mais mënatuñu nekk ak seeni wayjur te loolu catastrophe la bari na tey mondialisation yi ak li ñu créé wàllu technologie dem nañ ci ba ndaw ñi léegi ci technologie bi la ñuy yaru ji te technologie da nga ci war a indi yar mais du fooy jële ab yar dang ci wara dollo ko ci xam waye waru la jàngal xam-xam ndax nit xam-xamu dënn mo jitu ci mom te kilifa kay def ci mom allamakum ma lam takunu ta'lamun lolu xam-xamu dënn la ken du ko jàng école école connaissance mo fa am et que yàlla connaissance et le savoir connaissance dafa éphémère te mom lañu jëli ji école te technologie école la il est trop éphémère mais foog nit ki xam ko ndax kilifa jàngale na ba yëg ne sax ndekete warul woon dañ ñu ko imposer rek parce que yi mu yàq tey mu ëpp li mu jot a defar ndax ndaw li ñu pareegul ci moom nga indil ko technologie nekk demal ak moom bés bu si jëlee yar bu dellusee dootul nekk ak yow te dootul xam nan lay tabaxe dundam ndax technologie moo ko tënk te technologie ouverture la la war a defal ngoon ndaf la war a fekk ak xam-xamu sagesse ba noppi moo tax fugg boobu nekk ak yow di yaru ak yow li mu war a jur ci yow mooy sagesse te sagesse kilifa kay nampal doomam moo kay nampal njabootam kon ndaw ñi am na lu leen yàlla di xaare te pour yàlla jot ci ñoom fokk yàlla yëg ne ndaw ni daw nañu iblis te àdduna tënku leen te bànneexit fawewu leen waaye seen bakkan nootu leen mooy ñent yi ñu tuddoon rekk te ñooy gaar dund ndaw waaw waaye bu yàlla yëgee na ñente yi tënkuñu la yàlla nee na danaa la xajoo te yàlla kumu xajo ngay jamam mu defal la lu tabax sa dundu tay ak ëllëg dana ci dem banela sax wabtaghi fima ataka allah dar daar al axira waaye wala tansa nasibaka min ad dunya limu ci bëgg nga jëfandikoo ko moy wax sin na nga rafetal kama aksana allah ilayk waaw rafetalal rek waaw nee na li ma la sedd tey ci cëru àdduna maanaam yàlla bu la defalee yar ba yëg ne man nga taxawu pénc dañu ci dem ba ne la léegi doxalal waaye li ma la sedd si cëru tey muy cëru àdduna nang ma ci bàyyi xel pour ëllëg ba ñoo daje mag yow ndax ëllëg foog daje am ngoon nag li nga ci jot a am tey pour tabaxe ko sa dund na rafet rek rafetalal waaw rafetal boobu yàlla ne dama ko jëkkee ci yow moo tax kama axsana allahu ilayka ndax maa la defare fi axsani taqwim waaw ngoon rafetalal looy def na ko rafetal yooyu nag moom lañu ñu war a indil ndaw ñi te ñu fexe ba nàmp ko bu ñu ko nàmpee ba fer ci soow dinañu yëg ne ndekete ñoom am na keneen ku leen amee waaye du ñii taxaw ci kanamam te kii ñu amee ñun ñëpp mooy yàlla ñun ñëpp alalu yàlla lañ tey li yàlla bëggoon ci jamono buy ñëw mooy ñu ci xel sax ba jamono du la tënk du la yóbbaale ndax jamono dina la indil lu ne ba indil la déchet te déchet nag xajul ci kër waxatuma laa kër yàlla kon li ñu wara def te tënk ci suñu bopp tënk ci suñuy njaboot pour yii xew tey bañ a gaar suñu dund ba yàlla dootuñu considérer comme ay jaam moo ñu fexe ba ñooñu bu ñu laa ñëw ci ñun fekk ñu ak système élément de défense yoo xam ne bu ñu ñëwee lu ñu mën indi danañ ko paare loolu daal moo mën a tax ndaw xam ne moom jamono jamonoom la waaw waaye mag moomatu ko te yan yi yàlla nga ko amee te yàlla du yan mag yàlla ndaw rekk lay yan waaw te li mu ciy def mooy yàlla bu la bëggee yan day fexe ba ci nanga nga doone ndaw mu yëg ne responsabilité yi nga war a dajale ba jamono fëkku la seytaane yilifu la sa bakkan nootu la waaye bànneex fawewu la yàlla yëg ne yow la wara a bokk nga ci ñi nga xam ne bu la dénkee responsabilité di nga xam fooy jaar ak moom ba egsi si moom ndax xiitam mu ngi koy jàngale ne wallazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana képp koo xam ne responsabilité yi la yàlla jox yàlla yëg ne attan nga ko yàlla ne na dana la xàllal yoon woo xam ne ci man rekk ngay teeri waaw te àdduna yàlla bi looloo ñu fi bàyyi moo ñu fexe ba dund gi ñu xam ci kuy yàlla ba pare xam si suñu cër ñun jaam yi ndax jaam ak boroomam lenn rek a war mooy exécution lii nga war a exécuter mu ngi ci sa kanam waaye boo ko jël lii yàlla bëgg ci yow mooy nga xam ne yow élément bi nga xam ne yaa war a exécuter yow lañu ñu jëkk laaj yow yaay kan ba noppi ndax kii laa laata yanu responsabilité il faut mu am nu mu mel ndax responsabilité yàlla yi tuutiwul ndax yàlla ñii mu amoon comme ay élément de base te ñu jiitu fi ñu jiitu fi doomu aadama yàlla dénk na leen responsabilité attanuñu ko ngoon yow boo ko fekkee ci ëttu yàlla jël ko yanu yàlla am na ci yow yaakaar waaye yaakaar boobu la mu ca bëgg mooy nga fexe ba bu ko tas te lay tax yaakaar bi du tas mooy li nga war a am comme bagage yu war a tax élément boobu responsabilité boobu boo ko yanoo doo jenga mais loolu nekk ci yow ba noppi ah moo tax il faut que nag ndaw ñi xamaat loolu ndaw ñi jëlaat loolu comme bagage bu ko defee lépp loo xam ne jamono indil nañu ko daañ ci xam suñu bopp ba xam nañu kaa taxawoo ba loolu buy dem duñu ñu yóbbaale ndax jamono bu ndekk jamono yi de dañuy fekkante civilisation yi dañuy fekkante kon civilisation bu ñëw war nga ca xam lan mooy siy doon sa taxawaay pour que beneen buy ñëw bu ñëwee fekkalaax cëslaay cëslaay bu war a tax bu ñëwee moom mu xam ne ah kii may fekk di rek xam na boppam te loolu rek moo ci ne wax dëgg yàlla yàllaa ngi dogal ne incha allahu xamna naa lañu la ñu indi pour mu doon ben parenthèse ndax itam wax deug yalla liñu wara war c'est de génération en génération c'est de de temps en temps muy lo xam ne du jeex ndax aduna la moy liñu tuddu ci njal ne légitimité buñ koy tudd rekk ndaw ñi ñoo tax kon ndaw ñooñu wax dëgg yàlla war nañu leen créer ay éléments de base yu ñu mën a sukkandiku pour mën a taawu seen dund tey ak ëllëg waaw lii nag bunta la bu ñu indi woon ci élément de base yooyu incha allahu ci jataay yii di ñëw parce que ñaan nañu yàlla ak desk info ñu am ak ñoom ay waxtaan yu gën a yaatu ci wàll bi ci kattanu yàlla am nañu yéene bi te insha allahu ñaan nañ yàlla yàlla na yàlla mottali loolu te suñu tele bi yàlla jëme ko kanam lépp lu ñu ci yaakaar pour mu dimmali ndaw ñi nga xam ne tey jii ñoo taawu àdduna taawu la mondialisation te muy seen nono di seen héritage ñu xam vraiment ñu leen indil lu mu doon ak bés buñ ko jëlee pour doxal ko fan lañu kaa jaar waaw loolu nag wax dëgg yàlla émission la woon bu nga xam ne euh, incha allahu émission la boo xam ne ñu ngi ko tuddee ndaw ak jamono waaw kon lii ubbeeku la rek ubbite la rek yaakaar nañu ne incha allahu samedi bu jot ci waxtu bii daañu ci indi bunt ay bunta ay bunt ba insha allahu ndaw ñépp fekk ka ci li nga xam ne mooy élément de base bi nga xam ne tey jii muy la technologie ci internet bi ku ci dem rek da fa fekk euh, seen mbokk taalibe bu bu bu soof bu bu gàtt àlluwa <laughs> mooy Souleymane sàmba di si am ay kàddu yu muy indi pour rekk ñaan yàlla yàlla nañu ko jël ak sago te doxal ko tamit ak sago xam ne rekk dañu am yéene pour suñu jarbaat yi suñu rakk yi nga xam ne ñooy ñëw war a taawu dund ñu xam rekk ne am nañu insha allahu fu ñu mën a jaar ba jaruñoo suñu dund loolu dëgg yàlla na ci yàlla jàpp yàlla ci yàlla def barke am nañ ci yaakaar itam ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi ci xam naa ci jataay yi di ñëw samdi prochain incha allah bu di h 30 jotee rek ñu dajewaat fii indiwaat ci la nga xam ne moom lañu ci am comme bind yaakaar ci yàlla mu mu doon luy jariñ incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu